soxna si ñu ngi lay na ngeen def soxna ngi lay ziar. <laughs> ngeen ma fekkee nag la. waaw dara new si si waañ bi rek. waaw na def yéen a ngi ci jàmm. ci jàmm ba baale bu jàmm. Papa de bu ngeen ci laajee danañ ci sawar a wax ndaxte bi mu fi ñëw xale bu tuuti la ñoo ko yar mu nekk ci suñuy loxo wax dëgg yàlla musuma koo àtte ji musuma dégg coow wala lu xam ne lu neexut euh, lu neexut lu nu neexut ma dégg ko ci dem ne fala fu ma déggee coow daal tiit yaakaar ne ca la bokk. mustaam yar ak teggin rek lanoo ñu woon ba yàlla dogal nag comme que mag la léegi moo tax mu détaché waaye ba tey mu ngi fi waaw. nga yar xale ba mu toll nii Sénégal ak nu mu mel yëkkati ko dañ koy sargal tuddee ko drapeau lu mu lay def. kontaan rek ak ak mbégte te xam ne bu meloon nee nit mu gën a mu mu mu naqarinu ndaxte buñ ko déggoon ci leneen nit duñ ko mën a bi cax ndax doom la ñoo ko jur loolu rek la. <laughs> noonu la deme dañoo nekk ci préparé parce que xaw naa naaj kii impaañam la. impaañ Papa Ndiaye ñu ngi ah, ñun la kay delloo. maaleykum jaam jaam rek ni ngeen def. yéen a ngi si waañ bi de. waaw ñoo ngi si waañ bi la. ñu ngi ñu tuddee ko drapeau nu mu leen def. xanaa mbégte rek mbégte moo xam ne am na commencé waaye amu fu mu yem ñun ñaan yàlla yàlla na drapeau bi jëkk si barke Seydina Mohamed xale bu yaroon nag xale bu baax la mérito na daal liñ ko jox liñ ko jox moom Njaay Jaata melu noonu. baa yaa ngi waaj dama baa yaa ngi waaj dem sa làmb. waaw ah, gisoo ma nii ñu may demee si waañ bi nii nii def. yow. <laughs> Mor jërëjëf ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi leen delloo ziar di nuyu ñu nekk ci salle bi yëpp di leen tatagal leen jox seen wàccuwaay di comme ni ñu fi rek muy Papa di suñu nawle di suñu xarit ñu tuddee ko drapeau du Baye Fall ko drapeau ah, moo ko ñun ñëpp ñu bàyyi suñu te ñëw teew te teew nag lu war la. ndax Papa Ndiaye di nit ku baax di nit koo xam ni yëg na doomu aadama di nit koo xam ni yaakaar naa waxuma la axlu làmb mais képp kum dajal rek dina la jox wàccuwaay kon bu ñëwee aaye lu mel nii day am solo ñu ñëw teew comme suñu teewaay bii ndax àdduna amu solo gaa yëpp a ngi fi vraiment ñuy bëgg ànd daal bëgg a dem ca làmb ja bu soobee yàlla ndax mbooloo mooy doole te bu comme moom dañ ko tuddee làmb comme aussi ëlëk mën nañu ko mën nañu ko tuddé mën nañ tuddé keneen ak keneen ak keneen té képp kuñ tuddé lamb da ngay bëgg am benn force délégation boo xam ne dina la mën a permettre nga nga dugg ci lamb ji ak dugg bu la neex moo waral daal tey jotaay bi ñun ñëpp ñu teew fii ci Guédiawaye pour ànd ak Papa Ndiaye suñu doomu nday fa la ca lamb ja fay la am adu salaam borom Pikine waaw kenn lu yow am tey nga déplacé wu ñëw fii si Guédiawaye ñu tuddee seen frère seen xarit drapeau waaw moo tax ñun ñu déplacé Papa Ndiaye dafa nekk nit ku baax nit ku social moo tax tey ñu def déplacement ñoo gunge si bisam bi nit ku ne bisam la am nit moom loo ko xeebal bisam doo ko xeebal sëriñam moo tax tey lu mu xew la woon ak fu mu mënta ne bu loon tey génn na fi sax dañuy dem ndax Papa Ndiaye nekk nit ku baax nekk nit ku gore nekk nit ku social ba pare ñu ànd ak suñu président amateur góorandoo yi tey dem seet si Papa Ndiaye ànd ak moom si bis bi comme ni koy nit ñi defee ku ñu tuddee bis Papa def ci ànd nekkal géwal groupe bi tay kenn du Papa Ndiaye mais ziar na ko bu baax baax di ko wax tay ñu ngi wacc dem lamb ci ñun ñep di nuyu nak kanj suñu frère suñu lepp ñu ngi koy bëgge bu baax baax. ziar na wa am ni lay ziar di ziar sa cameraman Thierre di ziar wa kep gam ne yaangi ngi site bi ETDR Média di ziar kanj pour kilifa gi di ziar kep gam ne yaangi ci akhlu lamb ñi ngi félicité Modou Baye Fall mon promoteur bi nga xamne mo def lu rafet li tay ci man la ko ñëkke Balla Diop tuddoon ma drapeau ñu bokk association mu tëgg làmb tudd ma drapeau. tey su ñëwaatee tuddee ko Papa Ndiaye dafa delloo buum ci boy boy ga te Papa Ndiaye dafa doon kenn ci association bi Papa Ndiaye lu baax rek la wax ci association bi ñu ngi ziare président Gora di ziare képp koo xam ne yaa ngi ci association des amateurs de lutte ñu ngi lay nuyu muy góor ak jigéen ma ak ndaw di leen jox seen wàccuwaay di ziare champion bi fi toog Bébé moom it ñu ngi koy félicité bu baax a baax dañ ko suivre premier combat am ba ci nii biñ ko xamee yàgg na ci làmb lañ ko xamee mais mosul ñaawal dara lépp rafet kon champion ñu ngi lay bëggee tamit di la ziare xol bu sedd yaram bu sedd daal yàlla jàmm yàgg ci barke Seexul Xadim kenn yow le président des présidents ziar naa la. waaw maa ngi lay fay vraiment di nuyu sa caméraman Thier di nuyu ñi suivre yëpp travers ETDR Média di nuyu le PDG Kandji di ko jox waa ci bu baax a baax di nuyu champion bi fi toog muy Bébé Saloum di nuyu ñi fi daje ñëpp muy Elimane Diop di ki nga xam ne mooy Demba Gueye di Abdou Salam di Balla Diop di Maam Thierno di ki nga xam ne mooy Modou ceeb vraiment ak Abdoulaye Touba Belal ñu ngi nuyu ñëpp vraiment. tay ñu tuddé sa xarit seen doomu nday drapeau ye ñëm ngeen bay seen yité ñëw wa loolu war ker parce que tay ku melni ni papa ndjay dafa bok su ñun nek ko xamanteni ni ki jeune amateur kenn la di ko xamni ni pusoom la yor di defar rek nek nit ku baax ku murubai fal, sonn ci doomu adama tay ñuy remercier suñu frère Modou Baye Fall ndax dafa jël drapeau bi dippee ko papa ndjay su ko mu dem xol yi borom alal yi mais dafa xamni luy rafetal rek mom lay def ndax li du c'est première fois tibbee na fi drapeau ki nga xamni moy Balla Diop tudé nañ fi Ilimane tudé nañ fi nga xamanteni tay moy Demba Gueye kon tey su retourné waatee tuddee Papa Ndiaye def na lu rafet kon ñu ngi koy ñaanal journée bi yàlla may ko ci réussite totale may ko ci ndam Papa Ndiaye aussi tamit première édition bi dem ba nekk ay édition yu édition te ñun ñëpp ñu fekkee ba kenn bañ a manqué mais daal di rafetluwaat vraiment geste bi parce que tamit àdduna nii rek la teraanga dañ koy jokkalante te Mour Baye Fall nit ku xam teraanga la ñu ngi remercier Papa Ndiaye aussi ndax ku xool ñi mu fi dajale xam ngi du n'importe qui koy ñaanal édition yi nañ ko yàgg teewee te yàlla defal Mour Baye Fall réussite totale ci bis bi Bébé Saloum champion mang lay ziar. mang lay bëggee dom day. nga jam may ngi sant bi Karim bokh day jang biir fi indi day gina buñu santai sant yàlla julli ci bi di sant sunu ñaari wajur di yërëm suñu nday di ñaanal sunu sëriñ ci Abdou Karim mu yàgg fi te ànd ak wér dama ñëw ci gar ñëw ci waref nuyu kanji borom ETDR di la nuyu di nuyu mam cher bu baax ñëw bi nag daa mënta ñak ndax ko xamul na koy def. nam la dafa tax Papa Ndiaye di suma xarit di suma mag di suma lépp nekk nit ku mën a sonn ci nit mu may taxaw ci lu bari lu nit yëg lu nit yëgul kon bisam duma ko ko xeebal ndax man mii maa ngi ci ay xew-xew ndax maa ngi war a tudd mercredi Thiès laa jógee damaa ñëw rek summeeku jubal si ci bisam parce que bisam moo dëgg yàlla mënuma koo tuutal ndax nim ma dafa tax di ko ñaanal bis bi doon ay bisi bisi bis at mu ne moo Baye Fall mi ko tuddee it bañ koo rëccu di nuyu xaritam yépp ku ci melni ni ndoy les jeunes amateurs yépp grand Abdou Salam ñëpp gërëm na ñëpp parce que téway bi rafet na dar nañ ko won nañ ni seen xarit la wa di ñaan yalla dem ci jamm ñew ci jamm jërëjëf jërëjëf dom ndoy waral téway bi. wa and ak sama champion rek xaw ma mom mbeur la am quoi wa mu fu mu ma jógee rek mu jóg parce que dañu da am ben xarit bu tuddé drapeau te mu ma ñak bañu dem man ko gën grawul non dem lool do nga fi sama taxawaay de waaw mais jàmm am na fi da rafet na macha allah kontaan baax Elimane borom Seras ku mu jaayul baaxul Elimane maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar bi maa lay di bàggal di la ceer di màggal ñëpp di wax ni waaw am na solo ñu leen di ziar di ziar di ziar borom bi muy euh, Kandji sunu nit baax ñu ngi leen leen màggal ci nekk turam ak santam di wax ni waaw li ñu fi tajale moom ñëpp wax nañ ko euh, tey dañoo xaaj sunu sunu sunu jëmm ñaar ndax sunu xarit a xewle tuddee ko sunu xarit. Modou Baye Fall bi xewle sunu xarit la ñoo bokk association Papa Ndiaye bi mu ko tuddee di sunu nit carrément ba fu mu taxaw rek ñu rafet fa donc rafet na moom bu xewlee ñu ñëw taxawal ko ndax mu gën a rafet loolu daal moo ñu fi indi di ko ñaanal bis bi mu nekk ay bisi bisi bisi bis di ñaanal promoteur bi ko tuddee làmb ji bi mu ko tuddee yàlla bu mu ko réccu waaye loolu làmb ji am réussite totale waaw man dama doon dégg dama doon dégg tur bi rek mais tey laa koy doog a gis. ah maa ngi lay ziar. si la fi baax a baax. sa xarit sa doomu ndey sa seex te ñu tuddee ko drapeau ba njëg nga sam ngeen bàyyi seen yiteeb ñëw. waaw nga dëgg de waaw Papa Ndiaye ku ñu bëgg nit ku am yëg ci ci doomu aadama ku bëgg ñëpp. billaay kon nag moom bu amee bis tey moom dañuy ñëw rek te bu mën a jàpp ñu koy bàyyi ñëw waaw moo tax bis bi moom vraiment ñun moom suñu la moom ñu ko jàpp tey lépp lu ñu jàpp ñu ko bàyyi ñëw Pam Ndiaye moom amul fayam fekkee rek baax man nit man man man na mën a taxawal nitam mën a jàppale nitam kon nag lépp luñ ko luñ ko tuddee ñu lañ ko tuddee moo tax tey daal moom vraiment bi ñu koy rafetlu di gërëm promoteur baax a baax muy Modou Boy Fall ñoom suñu waay la moom it ñoo bokk groupe bi mais vraiment moom ni ko baax la moom it vraiment moom it di ko baax la xam ci moom ñuy liggéey maak moom ci ci domaine yu bëri mais jàmbaar la liggéeykat la te xam naa ne dara boobu mi ko tuddee tey tuddee ko ba mu yàggee dara da koo jàpp na rek nitam la nit ko baax la mu tuddee ko drapeau bi sentu xamna na sentu dara wallahi kon nak dañ koy jaajëfal diko ko diko ñaanal bis bi yalla na nekk xam rek na ci am lu koy ndortam luñ koy ñaanal mom moom total waaw luñ ci ñaan kontaan trop. Fass mang lay ziar. waaw li ziar ñi ngi lay ziaré di leen jox seen wàccuwaay bàyyi ngeen am jam am jam alhamdullilah ñu tuddé sa xarit sa doomu nday sa lepp drapeau nga bay sa yitte suba ba léegi yaa fi. wa gis nga Papa ndjay moko moko jaral parce que Papa ndjay c'est une personne exceptionnelle une personne Madame lu naan mon Papa Ndiaye le a ngi ci moom dafa baax maanaam bëgg ñëpp day Papa Ndiaye puso la kooku su xewlee suñ fi teewul rek maanaam day dara la ndax dafa doon ki nga xamante monument la créé Jeunes Amateurs une association de de de de de de qui, des amateurs ñu tuddee sont beaucoup Jeunes Amateurs ba ma ñëwee man moom bari waxtaan ma ne ko Papa Ndiaye lii man j'aimerais que ça soit une famille mu ne ma loolu mooy dëgg de dañ ko def famille mais gis nga léegi générateur famille am nañ si papa am nañ si nijaay am nañ si rakk jigéen ñëpp. kon Papa Ndiaye ñu ngi koy ñaanal bisam bii nga xam ne moom lañ ko tuddee ci dra drapeau bi yàlla na doon yàlla na ko doon lu ko jik si barke naa Mohamed te li nga xamante ne mooy site bi daf dafa ku ko yor damaa wax benn wax bu garaaw. ñemewu ma ko wax fenn amuma mbokk bu ma ko mës a wax wax jooju malgré que am na ay mbokk yu ma defal lu ne mais wax jooju noonu amuma mbokk bu ma ko mës a wax muy Kandji production dama ciy bàyyi xel chaque jour nit ku baax a ngi noonu gore Kandji production yàlla na ko yàlla defal jàmm. kilifa gi ziar maa ngi ñaan ziar ngi doon ziar bu baax. di leen seen xarit drapeau seen mbok seen am di jàmm ngeen bàyyi seen yite yëpp ñëw. waaw Papa Ndiaye moo ko jar quoi ndax Papa Ndiaye dafa nekk nit koo xam ne nit ku baax la nit ku oyof la comme ni ko ñëpp waxee muy nekk koo xam ne ni monument la ci biir jeune amateur nekk nit koo xam ne ni saay bu kàddoom jógee rek yow da ngay xam ne nit wax na gor wax na mu nekk nit ku fidèle nit ku dëggu moom moo tax ñu teewal ko ci bisam bii ñëw yendu fi muy nit ku baax waaw. tey bu amoon conseil booy jox promoteur ak bu amoon looy dolli Papa Ndiaye lan la. non Papa Ndiaye jaruma koy dolli dara ndax mi ngi ci. ndax dafa nek nit ko xam ne nii saay boo ko gisee rek day fédéré di bolé ay nit kon koku nit koku noonu yombul ndax ko xam ne bu say bu waxé rek yow di ngay gis di ngay gis sa bop ci limi wax ci ci jëfine ak ci defin yépp da koy def da koy wone say suné ne ci biir amateur di ñaw say suné ne nit yombul nit ko xam say saa gisse day def day def lo xam day bolé ay nit loolu yombul té loolu mi ngi si Papa ndjay man nak dama ko japp bu baax ndax jikko boobu loolu tax ma japp ko. Père ma lay ziar. maa lay ziar am. Modou kula ñawal. waaw waaw ki ma ñëwal moom ma nga ba Dakar xam nga jig ju bax la moom ma rek ñi koy wax euh, ndey amital mi ngi ruy rue Thionk. macha allah tey ñu tuddé Papa ndjay drapo di sa jarbat di sa dom di sa xarit di sa lepp tay nga bàyyi si yiteeb ñew sol sa balan bu rafet. waaw waaw ma nga le waaw Papa ndjay mom nit ku bax la waaw nit ku bax la té dañuy remercier Modou Baye Fall moom production mu def lepp waaw su su jëlé su jëlé mbattu del ko ci ndaala rek. ndax bu ñu nee amateur yi jeune amateur wala amateur Papa la moom moo rassemblé mooy wax lu baax mooy mooy mooy mooy mooy ambiance mooy delloo si nit ñi mooy wax lu baax euh, mënuñu ko fay yaru na am na tege loolu moo indi tey bi sax ñaan yàlla yàlla na ko bis bi jëkk mu nekk euh, di remercier bu baax Modou Baye Fall yàlla na ko yàlla na ko bis bi jig te mu nekk ay bis yu bari di nuyu association bi yëpp bàyyiwuñu góor baay bàyyiwuñu jigéen ndax association bu baax la parce que yaa ma gën a xam mi ngi dundal lamb daal te ay nit ñu baax ci nekk ay goro ci nekk ay taalibe bon doo amul distinction amul séparation seenu daanu famille lamb moo daje tey ngir ànd ak Papa Ndiaye gunge ko rek ci journée moo production yal na si yàlla def jàmm rek que le meilleur gagne di kontaan si yow di kontaan si maam no di kontaan si site bi nag du ma du ma ci taayee di si wax ci jëmb ji muy Kandji yàlla na ko yàlla fay yàlla fay ko xolam yàlla dolli ko yërmande sutura sàmm njabootam ba li mu bëgg Sénégal ci lamb ji defal ko ndax Kandji kenn la. Jangan na ko yàlla defal jamm jere ngeen jëf. président ma ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar bu baaxa baax. waa jamm alhamdullilah alhamdullilah ñu tuddé Papa ndjay drapeau ngeen bay seen yité yëpp ñew waaw di wax salaamaaleykum wa rahmatulah di nuyu mbokk internet yëpp di wax ni Papa ndjay dafa nek suñu waajoo xamni ku baax la moo tax mbiram kenn mënu ko tey dama am suma rak bu ñuy ngénte sax mi dama ko fa bàyyi ñew pour bisam bi ndax baax bi mu baax rek mo am solo. tay Papa ndjay di kenn ko xamne ci si biir ba tax na yow président écurie nga tey Papa ak làmb waaw Papa Ndiaye dafa nekk koo xam ne njëriñu làmb la ndax euh, nitu làmb ñëpp dañ koo jox bopp ndax dafa nekk koo xam ne toujours dafa yor pusoom di ñaw di xool lu rafet mu def ko fu muy waxee lu ñaaw wala fu ñuy defee lu ñaaw du ko fekkee moo taxit kooku bu amee bis tey jii tamit ku mel ni Modou Baye Fall tuddee ko bis bi di ñaan yàlla bis bi am réussite totale euh, Modou Baye Fall tuddee na ko te da ne dama la ko tuddee nekkul pour xaalis dara mais baax gi baax moo tax ma tuddee la ko te mënoon na ko jox ku nekk nag mais mu bàyyi ñëpp jox ko ça veut dire que moom moo baax rek yàlla na ko yàlla fay xolam amiin amiin maa ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay dolli ziar. waaw ñëpp jàmm. waaw ñëpp jàmm alhamdulilah. ñu tuddee kenn kenn koo xamante si njabootu làmb la bokk kenn koo xamante référence la si biir kenn koo xam ne référence la jeune amateur tey ñu tuddee ko drapeau ngeen bàyyi seen yite yëpp ñëw du ko na xam ne jot daa temps amul ngeen bàyyi seen yite yëpp ñëw waaw dañuy nuyuwaat euh, jeune amateur yëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo suñu président Gora Ndoye ak suñu porte parole euh, Balla Diop di ñaanal Sénégal euh, jël coupe bi suñu ministre ñu ngi koy ñaanal mu jël coupe bi coupe d'Afrique bi parce que fu ñu la commencé ñu tàmm coupe du nuyu Bébé Saloum le grand champion. parce que gis nga bis mu mel nii mbëri dañ ci war di dañ ci war di feeñ parce que ñii nii ku ni Papa Ndiaye Papa Ndiaye tuddee ko drapeau ñun lañ tuddee drapeau. moom nag dama ko koy wax chaque jour quoi nee naa ko am na beneen cër boo am ci làmb boo xam ni am na leneen loo war a def ci làmb loo xam ne defagoo ko te bis bu ko defee rek danañ xam ne li ma doon wax ñëw na di ko ñaanal yàlla nag lii ñu ko tuddee moom moo tuddee boppam sax làmb parce que moom moo organisé tey parce que moom moo production mooy Papa Ndiaye Papa Ndiaye moom production di ko ñaanal yàlla bis bi ñu yàgg ko feete ay ati ati at yàgg ko di ko di ko ñu yàgg fi ñëw ay ati ati ati at kenn bañ a manqué jeune loolu lañ koy ñaanal di xamal ni moom tuddee na euh, moom euh, Modou Baye Fall tuddee na ku jar a tuddee tuddee na ku yàgg a sonn ci làmb tuddee na tamit ku bëgg Ama Baldé làmb tuddee na ku bëgg làmb daal waaw di kontaan ci moom bu baax a baax di ñaanal tamit Modou Baye Fall muy dem bay tëgg combat royal waaw parce que moom mi ngi ci làmb mais dafa commencé di investir ci làmb dafa commencé di investir ci làmb di liggéey ci turam di liggéey ci image am waaw mais nag dañ koy ñaanal yàlla loolu mu ciy def ci làmb yàlla bu mu ko rëccu waaw jërëjëf. ziarnal naa ah, la. waaw ndax nu ko zaalika maa leen di ziar mam Thierno ak sama waji ni wa waa ETDR ma len di warmaal bu baakha baakha baax di len mag papa jay drapeau ngeen bay seen yitte yëpp ñëw. waaw mais papa ni rek la wara mëna démé amna ñu ne ci yoon bi di ñew amna ño xam dañ ko jidu estat parce que papa mo nek ko xamanteni ni nitu ñepp la papa Ndiaye mo nek nitu ñepp jël ñepp localiser len ci bopam amul kenn ak kenn xaar ma yàlla parce que nit la boo xamante nit bu oyof la nit bu bëgg nit bu yëg nit bu mën a sonn ci nit wallahi Papa Ndiaye barki démboo matagul matagul matagul sax un mois dañ ko woo jox ko assurance am na ay nit Papa Ndiaye woo ma laaj ma sama numéro auto sama sama carte grise ma ko papa loo koy doyee mu ne ma jox ma ko rek foto ko nga jox mako wala nga ki numéro bi ak ki bi enregistrer ko jox mako ma jox ko mu dagal ma assurance assurance Papa ndjay mbeur bu mak bo xamanteni ni ci ci VIP yi la nek nek champion bu mak jaru sax ñuy tuddu tur yëkëti ay dàll yoo xamanteni ni suma né 250000 mu naane man mom lay jar may ko Papa ndjay Papa ndjay fekk ma ebamar dama jékki-jékki rek idali idaali mee keroog ñoo and mu mu ne ma wàccal verre ma wàcce verre mu sànni ma dàll yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam buñ koy raconté fi la fanan ci Papa ndjay nek nit ko xam ni nitu kese la nit ku bëgg nit nit ko xam day sonn ci nit nit ko xam lu mu am nit ñi la koy jox réservé wu ci bopam kon koku nonu tay bisam ni rek la wara mëna démé mut demee Modou Baye bi ko tuddé nak bis bi nak juumul man la ñëk tuddé bis mais mom la waroon a njëkk avant parce que nit la bo xamanteni ni Papa ndjay yaakaar naa boy wax ci mom sax moy lol non ya na ko yàlla defal tawféex defal ko jam lepp lu muy sonn ci nit yàlla nako ko fay waaw. yi dal ñing ma ngi lay ziar. ah ma lay ziar di nuyu ibrahim su cameraman di nuyu borom site bi muy kanji di nuyu gaa yeb hmm. tay ñu tuddé ko xamanté da di kenn ko xamné ne si yéen la bok tay nga bàyyi sa yite yëpp jóge sa kër ñow ba kërëm ci waaw Papa ndjay nak duma wax sama xarit la quoi. dama jàpp ne nit ku ma bokkal ndey ak baay moom lañ tuddee làmb ndax di gën am solo ci doomu mooy koo xam ne boo gisee ay bëtam mu lay tiitaroo te Pape Ndiaye acte boobu lay def daal xam nga nit moom kenn mënu ko lekk kenn mënu ko naan njariñ rek lañ koy doyee mais Pape Pape dafa am njariñ daal ndax doomu aadama bu amee acte yoo xam ne daf koy def rek mooy wane ne daf la sopp te saa bu la teg moom bu la teg bu boo ko xool rek lim lay xoolee mooy bëgg moo ne ci moom quoi mooy daf lay yéene loo xam ne sa amaana du ko yéene boobu man nam leneen rek leneen lu li daal waaw ñu koy ñaanal suñu borom xam nga mu doon ay journée yu bare bare bare Mourou Baye Fall di ko tëgg Mourou Baye Fall mi nga xam ne moo ko tuddi lamb itam suñu borom may ko kattan may ko sutura ba lépp loo xam ne lu muy séentu ci lamb rek suñu borom jàppandal ko ndax lii lii bu amee itam grâce à ma wax ne man la daal ginnaaw suñu borom ndax maa ngi nuyuwaale sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax di ko wax ne ko Mbacke Balla ñaane yegg si na ndax sëñ Abdou Karim Mbacke moo ma sa wax bi may dem jeune amateur ma di ko taxawal moom ma ne ma jeune du doon jeune amateur tànk kanam la yem waaye doom tànk ginnaaw loolu gis naa ko Mbacke ñukoy koy ñaan bu baax diko wax ne yalla nako sun borom may wir diko jale ki nga xamee ne suñu sëriñ bi genn aduna tan rek muy doom bobu diko jale wa waa Touba yëpp di wax ne daal suñu teewaay moom teewaayu mbekté la dal wa di ñaanal Pam mom mënu ñu wax ci mom dal di ñaanal ñi nga xamee ne ñëpp rek Pam jaay mom yaakar na li ñu wax ni ñukoy xaré xaar sax mo gëna bari xagn na dañu mënu ñak baña bañ ci kër gi rek mais gaay yeb nga esaat taxaw di xaar Pam jaay dal Papa jaay ma ngi lay nuyu di sia ma ngi lay ziaru bu wér sa dom nday sa xarit Modou Baye Fall di pay le drapeau diggante bébé Ama ak mbay xada waye lu jiitu la bu ñëwee kër ga gis nañ tay say xarit say doomu nday say soppé say andano li la accueillir taxawul ak jàppale la ak kaddu nga xamné bi jugé na fa loolu yok tay té dama ci sànni ñaari baare te wax ju du bari may santu aduna bëpp dila di la sant di la gërëm nit ku baax la damay dégg sa communication do mamu do débar yalla suñu borom dafa gam tey lama lamb di soko fay tay sama xol dafa sedd ndax bi ku ko jaglé bu na do ay tax na manan ko jaglé borom mi noy bari mais dana ma séntu ma si yow dara man maa la bëggal sama bopp muy doxe loolu may doxe loolu ba yàlla dogal lii tey li tax mu gën a rafet nag gis nga ko Serigne Abdoulaye Ndiaye mi sama waa rek ya daal li ñu ngi Pape Seck euh, du ma bàyyi euh, euh, Mamor Seck sama xarit la Cheikh Ndiaye ñoom danoo jàpp si bis bi ak Sall ñi ngi Pàkko Lambaay xaalis bu bari la ma jox saal ñi ngi barke alxuraanu karim moo ko Abdoulaye kenn du ñoom ak Kanji sama waaja yàlla na ko yàlla dafa jàmm Kanji kenn du moom. kenn du moom. mais tey lay di ko sant di ko gërëm xam na ko moom lu mu dëgg maay itam conseil la bis bi ko tudd tey moom mooy man maay moom ñu ñaar yëpp benn lan na ko réew mi ñaanal te bàyyi ko xel te naa la bu jógee ci lii dina am yeneen ak yeneen yeneen bunt yu feeñ ndax fi ni réew mi yëpp bëgg a xam Modou Baye Fall rawatina man mi mu song te bëreeguñu yàlla nu bëree si jàmm xam naa ne dañuy niil ndax kenn du daan sa morom. bëgg naa ci yow. kontaan naa ci yow mais Thier ci kanam nag ma woo. jéem ETDR établissement Touba Darou Rahman di entreprise bu mag bu ci BTP travaux de bâtiment génie civil maanaam lépp lu jëm ci wàllum tabax kër réhabilité wala réfectionné dañu ciy taxaw ba mu établissement Touba Darou Rahman su la neexee mën nañ laa jox kaya amee am gros œuvre ak second œuvre gros œuvre mooy li ci fondation élevé tabac roulé ak raax ci second œuvre bi nag ci ngeen di électricité ak plomberie ETDR am nañu ay boutique

ETS Touba Darou Rahman arobase gmail.com mën nañu defaral itamit boole la ak suñu ay ouvrier prestation de service bu mucc ayib ngay am foofu mobilier de bureau de dernière génération am na ci ETDR location de voiture MANAM ETDR moom bàyyiwul dara moomeelu réew mi la établissement tuba Darou Rahman yéen doomi réew la